yore sénégalais di ko sas gis nga mbër bi bokk ko nee ou attention attention euh, euh, euh, tu n'as amuloo droit daanu il est crispé day daanu dëgg la dëgg la il est crispé day daanu parce que ñun nous sommes des sportifs mhm. ñun nous sommes des sportifs d'instinct. ah mhm. voilà euh, ci loolu Père Laye euh, doguma la mais dama bëgg nga rattaché euh, fi ngay daanalee ak sama deuxième laaj. muy après par la suite. gis nañu Kalidou Fadiga moom nekk ancien international tenir moom it yenn propos ni Aliou Cissé bu fekkee indiwul coupe bi sax mun na fa jaaree bàyyi ñu bëri tamit jàpp ni loolu tamit c'est trop vraiment trop chargé la personne. gis nga Penda je suis content que nga posé ma question soo ma ko laajuloon danaa ci bëgg wax. <laughs> je suis déçu que Fadiga di wax parce que Fadiga fait partie de ceux qui doivent protéger Aliou Cissé. Mhm. ils ont revêtu les mêmes maillots. Vraiment. dans différentes campagnes. Mhm. il se fragilise Fadiga. Mhm. il est en train de fragiliser ses coéquipiers d'il y quelques années. quand j'ai vu ça mais dama xam nga nit ku nekk ñaar la. da sopp un sportif. fekk na nit ki est différent mën nga sopp un sportif nit ku nekk ñaar nga li ngay def ba ñu sopp la. comme sportif ak nit ki nga doon parce que boo waxee rek léeg-léeg gàkk wax dana feeñal nit ki. Mm. ou négativement ou positivement. ou positivement. Khalilou Fadiga quand il tient de tels propos c'est négatif. c'est négatif c'est trop négatif quand ça vient de quelqu'un d'autre je peux m'en détourner. Mm. mais quand ça vient de lui je suis déçu. Mm-hmm. parce que ñoom ci ñu war jël relais wu Aliou Cissé mën na ci bokk. effectivement alors s'il fait partir Aliou Cissé. en tenant de tels propos mm. propos. ces propos dana ko rencontrer un jour. mu nekk quand même ay propos yu nga xamante peut-être mënoon na ko tenir euh, bu ñu demee tey jii ba Sénégal def ses preuves ba ñëwaat. man mu koy hmm. hmm. wax ci benn tête à ak Aliou Cissé. Hmm. mën na ko ci soit Khalilou Fadiga mu tenir de tels propos. a tenu les mêmes propos quelque part. je suis muy jóge ci ñoom. parce que ñoom ñoo war servir. de pare-choc. Mm-hmm. et ah, d'exemple également soo gisee ñu war ànd. Mm-hmm. finalement di glissante des pots de banane danga naan du dem fenn. Mm-hmm. c'est inélégant de la par de Fadiga. c'est inélégant moi je fus un jour son avocat. man j'ai eu à le défendre fu mu nekkul. et à l'époque c'était difficile de le défendre ca coupe du monde ba man maa doon avocat ci presse bi waaw su ma koy dégg tey muy wax loolu je suis déçu je suis déçu très déçu mhm. bu mu ko defati mhm. parce que nag lenn lañu mhm. footballeur yu mag lañu mais ay xaleel lañu suñu âge yu doom lañu am defuñ fi lu war tax ñu toog suñu kaw bopp dañu football kese te gañewuñu dara bu ñu deful lu ñu war def dañ leen di jubbante te gañewuñu dara gañewuñu gagné wuñu c'est vrai. boo leen di waxtaanee xaw gagné rek lay indi ñooy ñan. Mm-hmm. ñoom ñooy ñan. xam nga ñan ñoo fi def dara. ñoom Souris mm-hmm. ñoom Youssou Ndiaye ñoom Lamine Koura ñoo fi def dara. Mm-hmm. parce que gis nga ñooñu li ñu def. ku ko def tey gagné Coupe d'Afrique. c'est que li ñu def dafa tudd jeu de l'amitié. mais parcours ba ñu def ku ko def tey gagné Coupe d'Afrique. quel était leur parcours Claude Leroy a dit un jour en Afrique compétition bu Cameroun nekkul Nigéria nekku ca. amul qualité ndokk yàlla que ñun bi ñuy gagné jeu de l' amitié Cameroun la ñu ubbee gagné que 1-0. teg ci Nigéria 3-1. teg ci Niger cinq 1 teg ci France en demi-finale teg ci Tunisie en finale ku def loolu tey ku def Coupe d' boo xam ne daje gàkk Nigéria daje Cameroun daje Tunisie tu gagnes la Coupe d' am nga waaw kon xale yi nañu yem. Mhm. ci seen place football nañu jeex na. avoir été un bon jour ne donne pas tous les droits. Mhm. avoir été un bon joueur. ne donne pas tous les droits. Mm -hmm. Je suis déçu des propos de Khalilou Fadiga. Voilà euh, donc euh, je que vous suivez votre émission Sénégal VSD gis ngeen euh, gis-gisu euh, suñu père euh, di Lay Diaw ci actualité bi àttu jëmale ko ci football bi ñeel Coupe d'Afrique des Nations bi am fii ci di am foofee ca Cameroun te suñu gaynde yi fas yéene cee bokk ñu leen di ñaanal rek ñu indi fii ndam li ñu fas yéene gën a wéyal suñu waxtaan ba tey àttu jëm ci wàllu football. Mm. ñu gis naka nga améliorer déjà euh, liste bu bi nga xamante ni moom la Aliou Cissé présenté. baax na équilibré na. Mhm. gis nga Aliou il était en avance ci situation bi. yéen a ngi rappelé biñ naan mais Aliou Cissé vraiment il change constamment d'équipe. Mhm. mais du moom. Mhm. Ah, quelqu'un a dit un jour Aliou musul jël la même formation reconduire que deux matchs d'affilée du lui. du moom xam nga pend lu gars yi jaawale. sélectionneur. ak entraîneur. ak entraîneur. gis nga tey jii boo añee ba pare xëy na xamagoo looy añee suba ça dépend du marché. dëgg la. xam nga yow mun nga dem mën nga booy duggi marché am intention togg ceebu jën. dem fekk fa beneen dem ba marché fekk fa lu tax nga changé. li nga bëggoon togg dëgg la parce que yaa ngi sélectionné li ngay jënd. Mhm. Aliou Cissé looy def sélectionneur la. il subit l' actualité il ne fait pas l' mhm. et entraîneur celui qui vit avec ses joueurs. Mhm. et sélectionneur celui qui attend une date fatidique pour jël li mu soxla xoolal li ko dal tey des joueurs blessés ñii malaat ce n'est pas sa faute il fait ak li mu am il n'est pas entraîneur il est sélectionneur ba pare intelligent mu élargir son groupe à une trentaine de joueurs mmh. xam nga ñun lan mooy suñu chance. Mhm. nous n'avons jamais été un football dépendant. mooy lan mhm. amuñu Messi amuñu Cristiano Ronaldo amuñu Mbappé. Mhm. on gagne sans Sadio Mané. c'est vrai. on joue bien sans Sadio Mané. on gagne sans Edouard Mendy. et c'est ça nous notre propre. nous sommes un football d'instinct. au moment d'y aller dans le match dañoo dem ak li ñu am au moment d'y aller. dem ak li ñu am alors Aliou Cissé au moment d'y aller. dafay seet la vérité du moment parce que football amul vérité absolue mhm. vérité bu nga xamee ni téye nga ko pour cinq matchs déedéet chaque match a sa vérité mhm. parce que léeg-léeg chaque match a ses propres hommes qui se proposent mhm. nga dem ak ñooñu euh, j'ai j'ai des souvenirs yu ci bare match yoo xamee ni y a des y a des y a des qui oublient que le Sénégal le Brésil a gagné un jour la coupe du monde sans Pelé. day wone nii rek day dëggal que ni. ku fa nekkul ci équipe nul n'est indispensable. voilà ku fa nekkul rek keneen tamit euh, beneen mbir bu nga xamante ni ñu bëri jàpp nañ peut être mën na entaché un tout petit peu euh, xaw na ko sax entaché de déjà euh, sélection wu Aliou Cissé à savoir communiqué bi CAF génne woon ni joueurs yëpp mën nañ toog seen club respectif ba fii rek le 3 janvier mu mel ni loolu dafa xaw a ralentir un tout petit peu convocation ak ak mbas bi ci àddina bi. mais est-ce que tamit euh, Père Laye kaaf xaw ñoo négligé tout di ñun africains yi tamit yëpp ñu. gis nga léeg-léeg léeg-léeg dama naan est-ce que du chercher parce que soo xoolee ñu ni la Sénégal ma nga Cameroun avec neuf joueurs sénégalais yu demagul. Mm-hmm. ndax lan mm-hmm. Covid. ndax Covid. ça donne raison à la CAF. Mm-hmm. parce que dañ doon prévoir lii. ça donne raison à la CAF Sénégal dem nañu. neuf joueurs c'est une équipe. Mm-hmm. neuf équipe la cest à léegi feebar bi tas na équipe bu Sénégal bi en deux équipes. mais xëy na loolu la CAF doon prévoir. mais or mi feebar bi ñu bëri dañoo gis ni dafa mel ni comme CAF yeneen club yi la gën a ñoŋal que suñu que que que seen ay euh, club respectifs à savoir seen ay euh, club d'origine muy seen dëkk bu ñu demee ba gis mu tenir de tels propos. xam nga mun nañ toog mun nañ toog ci seen club respectifs yi ba fii léegi 3 janvier alors que ni euh, coupe bi moom daanaka. xam nga